Sering Modou Fall Menda garmila day domi soxna Menda wàlliwu la ndax bay bay Cheikh Ibra te moko defal lepp deglul ma limal la Cheikh Ibra ko jangal moko yar moko xamal moko tarbiya defor ko Modou Menda ka da dawala dana lak lak yu bari te ken xamul fum ko jange alquran mo ci mënoon ta dara tank mu ci sa tege fajj aajo fal ak folli da ko yomboon xoolal Amdi mi batin ba ndax nga xamna bay ba melon Cheikh Ibra ku ci mom mu ku ci sëñ Amdi ki marna na sëkk boroom tey jii mooy ak bay fali